<coughs> waadi al aqiq ca Medina Munawara lii ñeexal ma maraadun <coughs> seetal si boobu lu mu maraadun maraadun delluwaay <coughs> maraadun la du muraadun waaw muraadun mooy bëgg-bëgg moom xam nañ ne am na fa bëgg-bëgg waaye fu muy bàggante <coughs> wal maraadu aminillahi markazi ahmadin bi intasara al wa afxama ñu bëri muraadu aminillahi la ñu jàng maraadu mooy fu nit ki di yataraddadu makaanu taraddudi masraxun ak demuwaay usalli may julli ala xayril wara ci gën ji mindeef wa azuru te may ziyaare ko yuzakkiruni lbarqul wamidul maaniya aqiqan wa salan wa naqa wal awaaliya doon na wax ne bu melax melxatee sax melax bu leer bu bu feeñee fàttali ma déngëre yooyu aqiqan wa salaan wa naqa wal awaaliya waaw ana lu melax joteeg foofu yonent bi sallallahu alayhi wa mooy matlaaw jamil anwaar mooy fenkuwaayi mbooleem leer yi kon fu leer leeree war naa fàttali yontu sallallahu melax mooy jiitu taw taw mooy yërmaande te yontu sallallahu alayhi mooy tawi xol yi waaye mooy jëm yërmaande sallallahu alayhi wasallam day mebet fii rek ndax danaa baaganti xaat nag dox jëm ci Medina Munawara nga ne ko boo amee lool looy def mu ne may julli ci yontu bi sallallahu di ko ziyaare julli ci yonent bi fu la neex nga def ko waaye julli ci yonent fekk yaa ngi taxaw ci kanamam bokkut ak julli ci yonent fekk yaa ngi feneen ndax xadis ji dafa wax ne ku julli ci yonent bi alayhi wa foo mën a nekk ku ko nuyu foo mën a nekk am na malaaka boo xam moo koy wax ne ko diw nuyu na la ci barab sàngam mu delloo ko nuyoo waaye boo taxawee ci kanamam nuyu ko nag moom moo lay delloo nuyoo ziyaare ko ku nekk xam na lu nekk ci ziyaare ku tabe du la bàyyi mukk nga dem ak loxoy neen moo tax bàyyi doon ko wax ne wa in saalu hal zurtumul xarma aqiban wa hal atxafa zuwaara minhu almawaahiba laqad kaana inda annaasi wa maghriba laqad bu ñu waxee ne dem ngeen ziyaare sang bu tedd bi muy muhammad al aaqib mi nga xam ne moo gënoon a tabe nga xam ne ñu ko doon ziyaare fii jege sa dëkk moom sax ci jaziratu arabiya bi daf leen daan may te yéen da ngeen dagg ay xàll xat jubtumul ajwaa leylan wa fulkukum bii shaabaka almallaahu tilka saxaaiba yéen ngeen di dagg xàll tunge jaar ci jaww yi jaar ci niir yi ba agsi ci moom ndax may na leen comme ni daan maye aqulu mala sirran wa ruuxan wa kalkalan wa xatta mala ak yaasana wa aqaayba waxut may na ma rek noppi ndax bu waxoon ne waaw may na ma man ngaa wax ne may gi maanaam mën naa am doyut waaye mala sirran feesal na mbóot mi kon li mbóot soxla woon ci moom am na ko ba mat sëkk wa ruuxan feesal na rooxo kon li rooxo soxla woon ci may may na ko bam fees del wa kalkalan lu xol mooy dënn waaye xol ba lay wax lu xol soxla woon ci may may na ko ba mu fees del xatta mala ak naa nga ne ko waaw yooyu yëpp ay ay ay ay la zahir bi nag lu mu def yow mu ne ba suñ saag yi ñu demee woon bi ñuy ñëw sax suñu saag yi nga xam ne feesutoon bi ñuy dem bi ñuy ñëw dafa fees <coughs> xam nga loolu gën a mat ndax may na la may na ma ndax may na ma may na la mën naa am benn la mën naa am may ak la mën naa am benn baatin la waaye feesal na yi soxla may yépp ci man la feesal <coughs> loolu boo ko seetee danga gis ne lataayif yi lii yi ci jaam bi yépp kat kon may na ko li ci jaam bi yëpp may na ko may na yaram may na xol may na rooxo may na mbóot te lépp daf koo may ba mu feesal siraajun kàndela mooy làmp muniirun bay aji leeral bayyana bidal na allahu yàlla amrahu mbiram bi mawlidihi ci juddoom mawlid dana ci firi barabu juddu dana firi waxtu juddu bii nag waxtu juddu lay firi bi mawlidihi ci waxtu juddoom yàlla biddal na mbiram ba muy juddu rek mbiram bid na lu tax is ngir lan hudda daaneef na minhu tukkee ci moom qusurun ay taax taaxi kisra nga xam ne <coughs> ba yonent bi sallallahu alayhi wa juddoo dafa tiit ba fukki tóor ak ñeent daanu ci bàyyi dem na ba foofu di wax ak taax mi a iwaana kisra hal dahaaka wa anzara buruzu nabiyin inna kisra taqahkara wa man hadda haza alqasra wa huwa bi makkatin walidan fala yubqi li dal kufri madhara mu ne taax mi waaw xanaa feeñaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ba nga daanu ni di feeñal ne Kisra dellu na gannaaw naan ko ah ki daane taax mi fekk Makka la nekk di door a juddu juddoom rek daane taax mi bu demee ba xam ne xam na ne li fi li du fi bàyyi taax mi <coughs> du fi bàyyi maanaam la taax ma làmboo woon mooy jaamu xërëm di taal ay safara di ko jaamu safara sa fay na ndox ma ñiis na boo demee Iraq tey taax ma dafa des rek ngir xel yi jubbantikoo ci mul ibra waaye la àndoon nag taax ma dara desul yëpp <coughs> julleeg noddoog jàng alquran fa nekk waxat xamida fay na niiraanu safara si moom lay wax safara soosu nga xam ne junne ji at ñu koy taal buy waaj a fay rek ñi xambaat ba yonentu sallallahu alayhi juddoo nee na kamaj bañ xam ne li def lu rëy lii mbir mu rëy mooy ñëw si xaarat gis na uyunuhum seeni sewnde bi talaati mën ci fenk ka xam ne yasiilu dana royaat namiirun ndox mu neex min hu ci moom bay royaatee ci ay baraabam sallallahu alayhi wa wa qad hatafat te kàdduna tilkal hawaatifu yooyele haatif mooy ñu doon dégg ñuy wax te duñ ko gis ba ci xërëm yi ñu doon jaamu am ñoo xam dañuy ñëw di sujjoot seen xërëm yi dégg xërëm yi di wax julli gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam tilkal hawaatifu yooyele haatif af saxat bidal na bahaayimu ay baayima yi nga xam ne wax nañ ne an qad jaa ba dikk na yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa huwa moom nazirun tëkku la pour ñi nga xam ne ñi ngi mooy ba ci bàyyi ma yi <coughs> nañ leen ñi tudd ñëw ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga ne ki ñëw fekk yonent sallallahu alayhi wa sallam ci benn aslama muy wax rek mu ñëw ne ko ana kii mooy kii fenn yàllaa ko yónni waaye man de duma la gëm fekk suma mbëtt mi gëmu la te mbëtt mu ray ba ko ci mbuus la mbëtt muñ rayut sax du wax waaye jàpp ne loolu mënta nekk fekk suma mbëtt mi gëmu la man duma la gëm yonent bi ne ko ya dabb mu ne ko labbayka yaa rasulallah uy naa la yow yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon bàyyi may doon dund sax ak yii dee sax tudd nañ risaala ak rasulillahi sallallahu ndax nag ci moom ci ñëpp lañ ko yónni ñi nga xam ne yërmaande rek la rek rek rek rek lañ soxla seen yërmaande mu ngi jugee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu bàyyi may génnuñ ci laqad jaa ana dikkal nañu min naa tukkee ci ñun rasulan di yonent yàlla moo ko wax mboobu aaya la def bayti laqad jaa ana min naa tukkee fi ñun rasulan di yonentu li kulli naa ñeexal ñépp ñun raufan di aji ñëweti rahiman di aji yaram yasiru di dox bil xamiisi ci lëlëb xare ñëw na nekk yonent boo xam ne ci ñun la tukkee loolu ci yërmaande yàlla la bokk bu yonent yàlla yónni woon e, jinne ci nit ñi nit ñi bala ñoo jub danañ jommi ba pare waaw gis nga ñi nga xam ne jinne la gis foofu dañuy jommi ñi ci jëriñ jinne jëriñ sax da nga ne dana am manqué manqué bu def ci ñoom bu yónnee woon jinne ci ñu rek mu jaaxal ñu waaw bu yónnee woon malaaka ci ñun tamit danañ jaaxal moom mi nga xam ne moo gën a mat ba ñu yónnee malaaka ci moom jaaxle na ba door a xam ba jaar fi mu jaar ak sayyidatuna xadijata mu ne ko wallahi laa yuxdika allahu abadan yàlla du la du la gàcceel ba mukk loolu doy na yaakaar kuy def jikko yu baax yooyu amut foofu mu dem ci war warqat ibn nawfal pour mu gën koo dëgëral rek ci lim nekk te yonent bi sallallahu alayhi moo gën a mat ñëpp bu fekkoon ne nag nit ñëpp ñoon ñi ay malaaka lañ yónni wala ay jinne nit ñi dañuy jaaxle waaye ci mbaax ak yàlla ci jaam yi dafa yónni koo xam ne nit la ni yow laqad jaakum rasulun min anfusikum am nañu jàng rasulun min anfusikum tukkee ci ñi gën a euh, sell ci yéen yonent bu jugee bu bokk ci yéen di nit ni yéen di lekk di naan di feebar naka yow di xare di gañe léegi-léegi ñu gañe ko loolu yëpp ci risaala bi la bokk lu nit mën a xalamoo li nit mën a jëriñoo la loolu ci mbaax ak yàlla la yonent goo xam ne nag dafay lay dafay yërëmme yàlla ay turam raufun tur yàlla la rahimun tur yàlla la waaye mellaloo na ko yonent bi sallallahu alayhi wa <clears throat> taraat feeñ na xusuuru ruumi taaxi kawi ruumi inde buruusi yi waxtu waxtu feeñam ba muy juddu mu ngi ànd ak leer yoo xam ne ñi ngi gis taaxi ruum yi di gis taaxi ca basora fa taarat naaw xulubun ay xol maanaam ngir jàqare aw takaadu walla jege tatiiru dinaaw maanaam ngir ngir jàqare rek wadallat te tegtale qadaaya ay atte shaxsiyaatun yooyu ku jug yoo xam ne ci jëmmam ji rek la aju bi annahu ngir naka moom la akmalu maxluqin mooy gën caa mat jikuñ kuñ bind afiihi ndax daa nekk ci loolu nakiirun weddi jëmmam dund jëmmam rek ak nim dundee naka nit tegtale ne moo mooy mbindeef bi gën a mag mat ci ku yàlla bind loo xam ci dund yonentu rek sallallahu alayhi wa sallama ci gisee mat goo xam ne nii doo gis kenn ci benn nit moo gën a moom ci waxtu wu ne fala shakla deet nirwaale lil maaxi dalaali ñeel aji faas ji gi mu yonent bi sallallahu alayhi wa moo moo moo wax ne bokk na ci turam fa innahu naka luy mbit tey mbit lahu ñeexal na ko jawharun jawhar cosaan boo xam ne fardun bay aji weet xalaahu weet na ko nadiru ndend maanaam jëmmam ak shëklam amul lu mel ni moom amul ndend waqat kaana nekkoon na maxsuusan di kuñ jagleel wa jaa ata dikk mu ammiman di aji matale moom yàlla ko jagleel lum joxut kenn waaye yàlla yónni ko mu nekk koo xam ne tim risaalaam dafa matale loolu sax ci jagleem la bokk ndax yonent yi dañ leen daan yónni ci seeni nit moom mu ne yàlla yónni ma ci nit ñëpp yonent yi ko jiitu yàlla daganal leen woon ñiy lekk màng buñ xaree moom yàlla daganalal ko loolu yonent yi jiitu woon yàlla daganalu leen woon ñiy julli lu may ci seen jaamukaay yàlla yi lu may jumaa waaye moom dafa wax ne wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran man yàlla daf maa defal suuf lépp muy jumaa suuf muy jumla def ko tim muy laab nga xam ne sax mën nga cee tiimee boo amul ndox moo julli waaye mën nga cee jullee yàlla yi def ko def nu surtu bir rox bi masirata shahrin yàlla def koo dimbalee ci noonam yi eh, def ragal ci noon yi donte distance bi nekk sa digganteem ak ñoom doxab weer la ragal boo mu ngi seen xol yi moo tax bàyyi ne seetal loolu jëmmu ji yàlla teddal di ko teddal di ko teddal di ko teddal bobu bu nekkee ci diggante nit ki doxab weer mu koy ragal loolu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ko yàlla may xam nga ne booba doxab weer ku sa noon nekk doxab weer man ngaa euh, daw dem fu la neex melu ni léegi nga xam ne léegi mën na ne nii radar aksi balaa ay minit wala balaa ay euh, waxtu sa noon nag nekk doxab weer di la ragal loolu bokk na ci li yàlla dimbalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi mu ne ragal boobu kat moom la yàlla dooleelee julit ñi ba léegi noonu lislaam yi bu taxutoon ak ragal boobu yàlla def ci seen xoli yi kon danañ songandoor jullit ñi benn yoon waaye ragal boobu mooy tax waxtu wu nekk ñi ngi ragal <laughs> julit ñi loolu ngànnaay la bu leen yàlla dimbalee te lum jagleel yonentu yàlla muhammad la sallallahu alayhi wa sallama waxtim ne yàlla jox na ma jawaamiul kalimi maanaam ay baat yu tuuti yoo xam ne dafa làmboo njëriñal àddina ak àlaxira benn xadis yonentu rek sallallahu alayhi wa sallama mën nga koo topp yàlla jubal la ci kon ñëw na di maxsuus juróom yooyu ñu tudd yu ko yàlla jagleel la walis yeneen yonent yi ko jiitoon waaye wa jaat dikk nag mu man di aji matale matale ooteem bi ci ñëpp la jëm nit ak jinneeg ñëpp ko gëm jëdan ci may wane den ak may ba tey lil musnitiina ñeexal way fëggule ñi yasiiru dana dox lil musnitiina ñeexal way fëggule ñi mayam dana dem ba àgg ci ñoom afaada bëbb na na may mooy may gu bëree bëri lil kulli ñeexal ñëpp laka boyal na saybahu ak mayam daifu unaasin aji doyadi nit ñi naalahu jot na ko wa xatirun ak aji kawe ci ñoom aji foor ci ñoom mayam emelewut ku tuuteeg ku ku ku ndaw buur ak baadala ñëpp la may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àgg ci ñoom te fi kulli xayin qad xabatta bi nicmatin ila kulli aqsa nnaasi juuduka yutraxu wa fi kulli xayin qad xabatta bi nicmatin hmm? ila kulli aqsa nnaasi juuduka yutraxu wax ba alqama waxoon la wa fi kulli xayin qad xabatta bi nicmatin wa xuqa li shaasin min jadaaka danubu alqamat faxlu moo ko waxoon buur bi bàyyi xool wax ji ne loolu yonent rek ko def sallallahu alayhi wa sallam moom mu ne waa ji gàdd gu nekk may nga fa may gu bëri bàyyi ne wa fi kulli aqul wadkuru maa qaala hmm? wadkuru baytan qaalahu alfaxlu maadixan wa musni siwa xayri alanaami kaduubu wa fi kulli xayin qad xabatta bi nicmatin wa xuqa li shaasin min jadaaka zanubu li waa ji taggee alqamat faxlu taggee munzir bi nu maa samaai ngir bëgg mu bàyyi mbokkam mu ñuy wax chaas ne ku gu nekk may nga fa may gu bëri bàyyi ne loolu daal ku ko taggee ku du yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam duut nga de bi xaari xiraa in ca xuri xuri nga xam ne fa la yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon ba wax yu bi di wàcc ci moom jaahu dikkal na ko al waxyu waxyu bi id gada ba mujjee ba ba mujj riyaadu di ay aljanna jëri ay aljanna indahu fa moom riyaadu jinaanin dëri aljanna yi indahu nekk na fa moom wa sairun ak safara mu ngi indi ute goo xam ne nii ku topp yoonam dem ku bàyyi yoonam it dem safara wax yu boobu nag mu ngi ko dikkal fekk mu ngi ci xaaral xiraa nga xam ne fa daan dem di jaamu yàlla ay ñeen fukki fan bu yóbbalam jeexee sayyidatuna Xadiija radiyallahu anha yóbbalaat ko mu dem foofu ba waa Màkka yi ne inna muhammadan qad ashiqa rabbahu de ne waa Màkka yi ne muhammad mii daal bëgg na boromam de bu ta boobu ooteegu dara mbëggeel mooy jëng ak bakkan ci leneen ngir kontaante bu muy am ci loolu bu demee nag ba dëgëra dëgëra dëgëra dëgër shadda wa qawiya dootuñ ko wax xobbu dañ koy wax ishq mooy cofeel <coughs> faza lii li yaminin ñaal asxaabul yamin jaa a dikk na ahmadu qaabilan di aji nangu awaamirahu ay ndigalam ñi nga xam ne ni dañoo dikkal yonent nangu ay ndigalam wal baxru géej gi géej ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laysa muy ngeer de yonent bi sallallahu ay mayam du ngeer de waxoon na ci moom ne bihi ruslu wal aqtaabu haamu wa urshidu wa qad taraku min baadi za bahrahu rahwa mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonentu yëpp alayhim salaatu bi lañ bëgg topp ko yàlla jubal leen waaye ñoom ñëpp am nañ seen ak njub ci yonent bi sallallahu alayhi dem bàyyi fi géej googu géej gi mu ngi des nekk di géej te mu ngi des tim nekk géej gu dal goo xam ne sax nit mën na cee feey nit mën na cee naan <coughs> mooy kon texe ngir asxaabul yamin ñi nga xam ne ñooy ñan mooy ñi ko dikkal nangu ay ndigalam muy géej goo xam ne ay mayam du ngeer ba mukk waxis yun moo gàcce ba tey li ashaabi shimali ñooy ñooñ càmmooy mooy ñi nga xam ne nii dañ koo bañ a topp yusibuhu dana jot ko jahulun kay aji reer asal haadi xetag haadi ki yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam kay juble wa minhu tukkee ci moom kookale fujurun ak jeng ak jubadi moo ñëw indi texe texe goo xam ne ñi ko topp ñoo ko moom ñi ko topp nag ñoo texadil seen bopp moo tax yonent sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ñëpp àjjana lañ jëm lu may ku bañ ñu ne ko kan mooy bañ mu ne mooy kii ku ma topp dem àjjana ku ma mooy kookooy ki bañ ida jaada ndam tabena na bil maarufi ci may fal kullu képp xaanimun aji màngala bu yonente sallallahu alayhi di maye ñëpp dañuy jot seen wàll wa yaa way xa ahla shirki onama taskarek ñooñ bokkaale nag xiina yu xiiru waxtu woo xamee mu ngi lokki de di leen song ci xare bu mayee de mayam dañ ñëpp waaye ku texaa di ba yontu bi song la onaa sa texaa di de fasal laajteel laajal an xunaynin ci xaswat xunayn baada badrin gannaaw badar wasal humu laaj leen an ahli kitaabin ak ñooñ téerewe maanaam yahud ye yahuti banu nadir xiina xaana ba xurujee nadiru nadir de laaj leen lan lañ gis bañ xurujee yonent bi sallallahu alayhi kon nam mën a mayee bu songe ci yoon yàlla noonu la mën a xalagee ay way juba de wa xaybara laajal xaybar bal waadil qura laajal waadil qura wa quraydatin laajal bani quraydata wa makkata laajal makka is xaylu ba ngaawar yonent bi fasam yi tusiiru mu ngi fëndal de laajal waa màkka ba si fatxu makkata ba nga xamee ne yonent bi dugg naa màkka sallallahu alayhi wa digg bëccëg fënd ba dafa wuri jóge jóg ba da ngay foog ne màkka nekkatuñ ci bëccëg ci guddi lañ nekk de xujunun xujun ci makka la te baddaa feeñ na fii ci moom xaylu muhammadin naari góor yi muhammad sallallahu alayhi wa sallam liwaawu aminillahi darapo yi gi nga xam ne mooy ka yàlla xoolu ci waxyu bi fawqa ci kaw fawqa ci kaw yatiiru mu ngay naaw ca kaw de bés boobu nga xam ne darapo yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngay naaw ca kaw xajun faqad wati a dëgg na almaaxi maaxi ka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ka aji faar ji kéeféer riqaaba sunaatihi da nga doqi way bañam de wa waafa te àgg ilal batha jëm ci batha makkata wa huwa te moom waquurun kuñ we ku wegu la ñëw makka fekk mu ngi ànd ak wegeel goo xam ne nii makka yépp dañoo tiit ba nga xam ne Abu Sufyaan dem na di wax Abbas naan ko sa nguur yi doomi mbokk mi eh, eh, eh, rëy na de Abbas ne ko lii du nguur lii du nguur lii ak yonantu rijaalu qurayshin góori quraysh taxta zilli suyuufihi ñoom ñëpp taxta zilli suyuufihi ñu ngi ci ron keroog ay jaaseem kum kum jéggal rek yaay mucc keroog fa axdaa te jëlale nag mooy gëmmu wala tasriba deet bàkkaat xaala la wax saburu aji muñ gi mu yontu sallallahu alayhi wa sallam loolu la wax la Yuusuf waxoon ay mbokkam laa tasriba aleykum alyawma yaxfirullahu lakum amu leen benn bàkkaat tey yàlla dana leen baal ndax ba yonente sallallahu alayhi wasallam ubbee màkk ak lañ ko tooñ yëpp ku juddu ci dëkk fukki at ak ñett ñi lay lor nga gàddaay fa baleen baaxuñ loraange gi yàlla dimbale la nga not leen ñëpp nekk ci saron atte loo wax loolu mooy dem ñoom ñëpp ñi taxaw kenn mënu dara ku ku ku mucc yaa ku muccloo loo ne ñoom ñu yonent bi ne leen lu ngeen foog ne lu laay def ci yéen nag lu ngeen foog ne lu ma leen def ñu ne lu baax rek mbokk mu baax nga doomi mbokk mu baax nga boo ko doon wax koo xam ne mbokk doomi mbokk mu baax la te baaxut tim du tax mu baax la waaye yonent bi sallallahu alayhi leen a jéggal waqat farra daw na safwaanu safwaan wa baata te mujj mu xarraban di kuñ sànq maanaam kuñ réeral waqad laana te nooy na saxrun saxru muy abu sufyaan is ngir lan te liinu dana nooy suxuuru doj de nooy na ba nga xamee ne luy nooyal doj kay dew na saxr la tudd te saxru mooy doj moo tax rek mu boole ko mu am munaasaba mu wax ne ba doj yi nooy wa kassara damm na uzza uzza laata laata laata xiina manaatihim wéy na seen manaata gi laata xiina kaza mooy wéy na waxtu nangam waaye comme laata seeni xërëm la ñoom dañoo def ay xërëm yoo xam ne yu yu jigéen azizu ñu ne uzza dégg nga dégg nga ñu ne laata seen xërëm yooyu yëpp nag yonent bi sallallahu alayhi na leen waqat sumiata déggeef nañ takbiiru kàbbar yi ñëpp di kàbbar bum jinju rek ne allahu akbar muy daanu jaa alxaq wa albaatil inna albaatila kaana zahuqan xërëm yi di daanu talaalul leen sax ñëpp di dégg allahu akbar yi te mamat nag xubuuru nag sigré mooy kontaan wa nailatun naila taaw yi mu ngay mbow kom ni xaj asaafun asaaf ba tey seeni xaram mu dammarun luñ daane luñ fañatale kadanaka noonu hubbal hubbal almuxda wada guñ gàccal daaha oona ko suburun safara xullil waxal alxaqu dëgg jaa a dikk na wa huwa moom diinu muhammadin mooy diiney muhammad sallallahu alayhi wa sallam de mooy li yonent bi doon jàng jaa alxaq wa zaaqa albaatil inna albaatila kaana zahuqa wa malku abi wa malkun aba wa malkun buur aba bañ na an yaqtafihi ba topp ko xaqiirun aji xeebu la de ku taxawoon nag taxaw ci nguur te bañ a topp yonentu rek mujj nga toro torox xad ihtazza rëng-rëng na baytullahi néegab yàlla bi istaafa ba waree aminan di aji hoolu bii ci moom xaashirun xaashir mooy yontu bi sallallahu nga xam ne ci ronde goom la ñuy pang jaam yi moo tax ñu koy wax xaashir wal qalbu tambir moom xol bi sama foofule xariirun aji sedd la de yontu bi sallallahu kaaba gi ànd ak kóolute néeg yàlla bi di rëng-rëngi xol yi sedd ndax dëgg ñëw na fen dem na wa abtala tey di yàq neenal ahkaamal jahalati ak tey yi nga xam ne moom lañ amoon naasiban di aji sampu samp shariatahu yoonam bi muy sharia algarra bay aji weex wa fukka te tekkeef asirun jarjar de ñi bàyyi nag jarjar yi bi xaq ni dimaa i ci wattu deret bi siyaanati ci ñoŋal daa iman ci sax loolu yëpp la indi indi na wattu bakkan yi li ardin indi na wattu der yi wa maalin indi na wattu xalal yi mustamara feeg dellu na duhuru ni jamono di te loolu mooy kulliyaatil xamsa yi nga xam ne dañ ko war a wattu wattu diine wattu bakkan wattu askan wattu der wattu alal li yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa ko de wa akmalahu tamatal ko walhamdu cant lillahi ñeel na yàlla moom daal salaatun julli alal haadi al aji nekk ci aji juble mindeef yi nuurun kay alayhi salaatullahi wa salaamuhu jëfiiri xabibullahi wa huwa xafiiru jëfiiri aji sama xabibullahi yonti yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam wa huwa moom xafiirun mooy aji wattu ba tey alayhi salaatullahi wa salaamuhu salaatan ala alhaadi ilayhi shakuru julli ala alhaadi nekk ci haadi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ilayhi jëm ci moom shakurun cantaakoon alayhi ma al ali alkiraami wa sahbihi habibiya mansurun wa zaaka alayhi yàlla na nekk ci moom ma al ali ak ñooñam alkiraami ñi de way sell tedd wa sahbihi ak i sahabaam habibi soppe sama mu ngay ñaan ku ma sopp mansurun nga nekk kuñ dimbale de wa daaka muy keneen ka ka noono yebuurun muy torox de allahuma salli ala sayyidina muhammad qala taala walladina amanu wattabaatum zurriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyatihim mu ne ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla gëm yàlla gu mat sëkk ci bàyyi seeni doom topp leen ci gëm yàlla ju xees sax gëm yàllaay waajur ya yàlla nee na doom yooyu daf leen di égal ci waajur yooyu mooy ne waajur bi mu fekkee gëm yàllaam dafa mat doom ji gëm yàllaam wàññeeku yàlla dana égal doom ji ci maqaamaay baay jooju baay ne naka noonu doomi rooxo muy taalibe dañ ko égal ci maqaamaay sëriñam bu fekkee ne maqaamaam dafa wàññeeku sax dayo maqaama sëriñ bi te mu ngi topp sëriñ bi yàlla dana ko eggal ci maqaama sëriñ boobu loolu ba tey xadis yi almar u maa man ahaba daf koy dëggal nit ki moo ki mbëgg ñooy dëkkaale yonent bi arab yi mooy ñëw ab kaw kawi arab saxaaba yi dañ daan wax ne dañ daan bëgg léeg-léeg kaw kawi arab yi ñëw ndax ñoo gën a sañ laajte bu ñëwee lu ne la ñuy laaj yonent bi sallallahu ñëw ne yonent bi mata saatu kañ la yowmal qiyaamati yonent bi ne ko maa addatta laha loo ko xadul loo ko pareel mu ne ko ma addattu laha kasira salaatin wala kasira siyaamin walakinni uhibbu llaha wa rasula pareelu ma ko julli yu bëri pareelu ko oor yu bëri waaye daal bëgg naa yàlla akam yonentam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko al mar'u maa ahab nit ki moo ki mu bëgg ñooy dëkkaale anas mu ne amuñ kontante gannaaw kontante guñ am ci kon ci diine lislaam kontante gu em ni gañ am bés ba yonent bi alayhi wasallam waxee wax jooju bàyyi nee na radiallahu anhu mu ne arja ma arjuhu li nafsi wa li ashaabi al mar'u maa ahab lu ma gën a yaakaar lu gën a rëy li may yaakaaral sama bopp ak samay topp mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne almaru maa man ndax bëgg na yonent bi bëggee yonent bi sallallahu <clears throat> ñi ko bëgg it kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ bëgg bëgg na yonent bi loolu yaakaaram la ñi ko bëgg bëgg nañ ko loolu it yaakaar yi ñooñu la waaye waxul rek ne dama bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog waaye roy na ko ci lépp ba ku xam tey wax dëgg rek boo waxee da nga wax ne bàyyi bëgg na yonent bi mu ne solo nañ ne <clears throat> benn aalim dafa taxaw ci minbar ne kulli yawmin kulli yawmin huwa fi sha'nin ne luy maanaa aaya ji laaj ko ni ñi mu dégg benn xale ne ko yow da laajte walla dangay leeral mu ne ko damay laajte xale bi ne ko kon wàccal minbar bi mu wàcc minbar bi xale bi egg ci minbar bi ne ko léegi laajal nag yow laaj ma mu ne ko luy aaya ji firi mu ne ko mooy wàccee ku ko neex éegal ku ko neex moo la wàccee léegi ci minbar bi éegal bi xam nga loolu ci chenam yi la bokk mu ne xale boobu imaam Malik la ñi xam boobu ne kii nii ki borom xel la laaye jooju bàyyi nettali na ko feneen ne Seydi Ahmed Rafai daf doon jàngale a ah, malaaka ko feeñu comme melo rek ne kulla yawmin huwa fi sha'nin mooy lan mu gàkk mu guddi nag mu gis bi sallallahu alayhi wa sallam bi ne ko shu'unun yubdiha la shu'unun yabtadiha ay mbir yu muy feeñal rek waaye du ay mbir yu mu tàmbali moom def na ba pare mel ni film bii ñu defar léegi nii léegi lañ ko defar waxtu neexee boroom rek mu taalaat yu muy feeñal la waaye yu muy duur lu muy tàmbali ca suba ga nag ba ñëw see aji laaj gi ñëw xadir la woon du jibril xadir moo ko feeñu laaj ko aaya ji mu gàkk mu gént gis yonent salaay mu xamal ko aaya ji ba mu del seeyaat nag ci suba gi mu tontu ko ne ko chuunu yubdiha la chuunu yubtadiha mu ne ko salli ala man allamaka hada jullil ci ki lay waxal lii xam na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko koy gàgganti gàkkat bu fekkee ne nit mën na cee amee gis yonent mu koy gàgganti jaar na ko ba tey Baay mu ngi wax ci tafsir i'lamu annama alxayaatu dunya laibun wa lahun wa zinatun wa tafaaxurun baynakum wa takaasurum fil amwaali wal awlaad la yàlla wax ne na ngeen xam ne dundi àddina fola ak kaf ak taar ak puukarewu seen diggante ak bërilante alal ak bërilante doom bàyyi mu ne laibu mooy foo bi nga xam ne moom la nit di def bu buy juddoo ba muy amee juróom-ñaari at mooy foo nga xam ne àndut ak bànneex juróom-ñaari at yooyu ba ba muy amee fukki at ak ñeent xale dana commencé foo foo yoo xam ne day ànd ak bànneexi bakkan mooy lahun wa zinatun bu ci tegee juróom-ñaari at muy am ñaar fukki at ak benn mu commencé nag bu fekkee waxambaane la wala jànq la ku ci nekk rek soxlaam mooy na rafet ci keneen ki waaw xale boo gis mu ngi seet bu fekkee ne am na ñoo xam ne dañoo foog ne peñe seen bopp yi moo leen di rafetal peñe nañ ko ñi foog ne rasta moo koy rafetal rasta nañ ko ñu foog ne am sikkiñ moo leen di rafetal ba nañ ko ñu foog ne wat ko moo leen di rafetal def nañ loolu am na ñeneen ñu ci yàq rax yeneen nag jël ay yeneen tamponné ko ci seen yaram yeeg yooyu yëpp pour bëgg rafet rek boo xool ci diggante at yooyu rek nga koy gis jànq bi tim noonu la dem na maquillage na def na lii euh, euh, rasta na fàtte na ne sax ne yàlla daf ko sant mu muuru loo rafet rafetlu sa bopp yow jànq boobu na xam ne yonent bi sallallahu moom moo wax ne bu demee ba xellatut muy feeñ ci moom lu may ñaari tenqam ak xarkanamam waaye muuruwoo genn naan nu mel waa ji daf laa war a wax ne rek laa ci am melu nen da ngaa waroon a muur muuroo rek noonu rek la mel te luñ oyofal la nag luñ oyofal la te oyofut waaye ñaar fukki at ak benn yooyu wazinatun mu ne mooy bu amee ñaar fukki at ak benn rek commencé rek rafet na rek la bëgg a waaw rafet ne rek la bëgg a dégg soleem bu mu bees sax te waxuñ ko ko mu foog ne gars yi dañoo añaan fekk gars yi añaanu dañoo talu loolu rek wa tafaaxurun baynakum bu ci tegee wa takaasur fil amwaali wal awlaadi bu ci tegee yeneen juróom-ñaari at nag nga xam ne mu ngi jëm ci eh, ñaar fukki at juróom-ñett léegi nag commencé na am responsabilité waaw lii laa am am naa oto am naa kër am naa ay doom am naa jabar am naa nangam loolu rek mooy puukareem bàyyi nee na ngel la jaam bi bu demee ba nga paase loolu nga am fanweeri at loo nelaw nelaw nag jot na pour nga eew nga dellu ci sa borom jot na nga eew dellu ci sa borom naa benn paa mu ne léegi ndaw néew na ku ci jaarul waaye saay saay moo ci bidanti ku dem ba fanweeri at naan ñun boy caay-caay rek la waaye borom mu ne ku sanq sa at ci juróom-ñaari at yi ñaari at juróom-ñaari at juróom-ñaari bii lahun bii laibun la laibun lahun zinatun wa tafaaxurun lii yëpp sànq dund la boo demee ba sànq dund ba agsi ci lii nag dëgg dëgg nag fi mu ne nii jot na pour nga xeewu tuub nga dellu ci am boo ko defut tëb nañ la maanaam nax lañ la daal ci sa business bi mu ne bàyyi radiallahu anhu mu ne faana bi wa adama ba muy firi wa anzalna alxadida fii basun shadidu wa manafiu linnaasi bàyyi ne bokk na ci ngeneen yàlla mu wàccee weñ gu ñuul ci nit ñi maye maye ko ndax bu weñ gu ñuul amutoon maslaa yu bari ci maslaa yi nit ñi dana dem moom lañuy ñuy gasee moom lañuy ñuy bayee moom lañuy tabaxee nekk noonu mu ne mooy amee nguur bokk na ci yërmande yàlla ba tey maye nguur bokk na ci yërmandeem ne lépp loo xam ne njëriñam dafa mat yàlla daf koy def mu yomba jot du cher buñ koy jaay lu yomb lañ koy jaaye weñ gu ñuul xam nga ne moo ëpp njariñ urus moo tax yàlla yombal ko urus bii ni mu chéré bu fekkoon nit moom lañ soxla ci tabax kër ñu tabax kër duñ bëri waaye nit ñi dañ ko sàkku rek mu ne ngir feeñal ak beew gëtt gëtt misk nga xam ne moom it nit ñi dañ ko feeñal feeñalee rek seeni i taar ak mbew gis nga nim seeree waaye ndoxum ñuul bi nga xam ne ni nit daf ko soxla ci dund yomb loo la def li ngay jëndee benn bouteille parfum su ndaw mën nga mën mën mën nga cee mën nga cee jënd mën nga cee jënd oto ndox loolu ngir ne yàlla nit ñi dañ koo soxla moo tax yàlla yombal ko bu seere woon ni parfum seere coono am jaww ji nga xam ne moo gën a seer loolu yëpp nag sa oxygène bi ngay nokki moom kenn du jënd sax waaw xajal ma ma nokki doo ko dégg kuñ ciy dimbale daal da feebar mu ne loolu ci xikma la li jaam yi soxla yàlla yombal ko ñëpp man cee jot li nga téere yi di firi alquran kaamil bee ko gën a baax waaye moo gën a cher kaamil yi kaamil ba nga xamee ne ñëpp dañ koo soxla yàlla fa koo def mu latte ku ku rek jot yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba koy ba koy ba koy bañ ko soxlaa moo tax yàlla yónni ko ci ñëpp moom it ñépp a ko soxla yónni ko ci benn koñ ne ko noonu ñu ko donn gis nga Baay Ñas bañ ko soxlaa daraam na batuwut ñam jamono ante koo ci koo ci dégg benn bandam ngay xéemu boobu bu la neexee nga am téeméeri bandam ndax yàlla daf koo indi pour jàng damm damm yi kuy war a jàng damm damm yi nit ñi war nañ laa xam war na ñoo xam ci li nga nekkoon war na ñoo xam li nga doon wax war na ñoo xam li ngay def moo tax damay wax ne taalibe Baay buñ nax nag yow la neex kum neex rek nga kaa la ñëw nit ñi tërala nit ñi sa yoon bu bees ne ne yaay baay yaay nangam dégg nga kuñ ci nax rek yow la neex ndax baay mu ngi nii dundam dafa leer dundam xam nañ ko photom yaa ngi nii ñu mujjee juddu démb sax juddu ci jamono caméra yi amuñ photo yi am ni photom yi loolu yëpp nit ñi xam ko buñ ne nii doon solo te nekk ko mën nga koo xamal sa bopp ci photom yi mën ngaa xàmmee ci photo baay photo bii korite la wala tabaski la mën nga koo xàmmee noo koy xàmmee boo gisee photo baay boo xam ne dafa wattu ci bés yi ayit rek xamal ne du tabaski te loolu yëpp sàmmanteeg sunnatu muhammadin sallallahu alayhi wa ndax koo xam ne danga ngaa bëgg a tabaski wala ngay aj sib nañ bu weeri tabaski teroo ngay watu wala ngay dagg sawee ba ba ñuy reyee tabaski yi masala boobu nag ba ko jàngee pour wérlu ne ci bàyyi noonu la daan def yaa ma jëm ma xam ne daf daan wat bàyyi damaa ñëw laaj ko ndax mas ngaa gis bàyyi mu watu ci ki mu ne ba déedéet xanaa bu demee it ba ñëw moo tax la mu Mousse waxoon ne mébétoon naa ñu oote waxtaan ci bàyyi boo xam ne duñ ci xeeb kenn waaye kenn du weesu li nga xam fi mu ne nag nit ñi luñ xamul rek la ñuy wax nit ñi luñ xamul rek la ñuy wax waaye kuñ nax yow la neex bàyyi mu ne kuñ la tànn jox la diine ji mel ni diine di islam boole sa bopp ci dof yi nga xam ne ku jóg tourné nax ñëpp jullit ñëpp la ko wax waaye taalibe yi ñoo gën a xëy ci loolu ñoom ñi nga xam ne moom la ñuy askanoo ne taalibe bàyyi laa ñi lay nax dégg nga dugal la ci mbiri ndof lu nekk ñu dugal la ci ne la lii mooy yoon wi bàyyi yoonam lu leer la layluhu kanahaar yi ay guddeem ak bëccëgam yëpp ñoom ñoo xem leneen luñ ci wax keneen kooku yëfam la na wax ne yëfam la te ellenteewoo nag kuy rax ci yëf yi nga wax ne sa yëf la ndax bu boobaa waxtu bu la nit ñi bàyyi buñ buggee jubbala yow dem waaye boo ne leen yëfi bàyyi la ñi gëm ne yëfi bàyyi la dañuy jàpp ne waxtu wuñ ko bàyyee rek ñoom nekkatuñu ci njub fekk yow lañ leen wan noonu du fi bàyyi seen njub mooy ñi bakku tappale bokku ci fenn bokku ci nax nit ñi bokku ci uruñ bokku ci waaw jubadi bokku ci waaw xikma bi daal mooy yàlla ci yërmandeem lu nit ñëpp soxla daal loolu daf koo oyofal nit ñëpp mën cee jot nga perkaal bi nga xam ne nit ñëpp a ko soxla de moo gën a oyof ci piis yi mune ne xikma xikma bu nekk ci julli ajjuma ajuma mune ne yëf yi yàlla daf ko bind yëf ci juróom benni fan ajjuma nekk juróom-ñaareel bi muy iit lu tax muy iit ngir ne julli yi daf cee mat luy illa sabab ñiy def ñi ciy def xutba nekku dajale nit ñi war ngaa wax ak ñoom loolu mooy xikmaay xutba bi buñ ko defoon mu ne ñeenti rakka kon mu gën a gudd loolu mooy sirru bi xutba bi remplacé ñaari ràkk yi dégg nga bàyyi feneen wax na ko ne iidi lislaam yi daal waxtu jeexale benn jaamu yàlla rek mooy suñu iid buñ jaamoo yàlla ba semaine bi jeex mooy ajuma iid la moo tax ñu xutba buñ ooree ba weer koor jeex mooy iidul fitri ba tey feet la moo tax ñu ciy xutba buñ jeexalee aj mooy iidul adha muy tabaski mu ne yàlla dafa bind xel ne ko jublu sil mu jublu si maay kan mu ne ko yaay sama borom maay sa jaam yàlla ne ko danaa la moom loo ñi ma bëgg ku bëgg lay may xel ah wax nag bakkan gannaaw bu ko bindee ne ko mën a kan mu ne ko yow a yow a man moom yàlla la def ndend yàlla ne malaaka yi yóbbu leen ko safara mu sax ci safara junne ji at ñi indiwaat ko yàlla ne ko mën kan mu ne ko yow a yow man yàlla ne yóbbuwaat leen ko mbugal leen ko ñi mbugal ko indi ko yow a kan mu ne ko yow a yow mën man yàlla na yóbbu leen ko ci xuri xiif na xiifa leen ko ah mu sax ci xiif bi ñaari at ñaari fan ñu indi ko yàlla ne ko mën kan mu ne ko yaay sama borom maay sa jaam bu torox loolu xikma bi mooy pour xamal ne bakkan xiif moo ko mën yar xiif xiif moo ko mën a yar am na ñoo xam ne ñu ngi leen tëj waaye comme ñi nga lekk ba suur bu ñu lekkee ba suur rek ñu ngi tëb pour bugg affaire bi wàcc sax waaye ku xiif tekk ngay def dars bi bu dowutoon koor da nga dégg ñuy wax ci suuf waaye ñëpp a ngi ne tekk mu ne bàyyi ne war na ci ku xelu muy xisaab boppam njëkk boromam di ko xisaab yowmal qiyaamati bés boobu nga xam ne yàlla melal na ko ne miqdaaruhu xamsiina alfa sanati bés boo xam ne mu ngi mel ni juróom fukki junne ci at nit war naa xisaab boppam balaa àgg foofu xisaab kan mu ngi oyof ci ñi xisaab seen bopp njëkk ñi leen di xisaab xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu bàyyi mu ne nit ki war na la bët bu set nga wéet ak sa bopp yow kenn julli ñaari rakk ba pare nag xalaat ci li nga def ci bés bi ndax li nga def ci bés bi falaa war falaa ñaar nga ci gañe wala nga ci perte war na ci ku jàng alquran ba tey mu ne bu jàngee bismillahi rahmaani rahim mu noppi tuuti bu fekkee mu ngi jàng saar mu mel ni waylun ni ki waylul mutaffina waylun li kulli humazatin ngir rek dox diggante mbugal ak yermande ndax raximu ak waylun dëppoowuñ mu ne bànneexi gëm yàlla dañ ko xamee ci jàng alquran ak ci julli ak ci tudd yàlla mu ne ku amut bànneexi gëm yàlla ci ñetti yi nga xam ne kon yàlla dafa tëj xolam de ku neexee nag mu ubbi ko moom giñ tëj xolam bu ko neexee mu ubbi ko li koy ubbi rek mooy jaam yàlla yi ba tey bàyyi ngi wax ci kalla innahum an rabbihim idin la mahjubuuna ñi nga xam ne ñu ngi dem safara yàlla na bés boobu yàlla def leen di xiir boppam bàyyi mu ne xijaab mooy sababi azab mooy sababi mbugal de comme ni nga xamee ne buur buuri àddina yi bu fekkee dañoo bëgg a mbugal nit dañ koy xiiru duñ nangu mu ñëw ci moom duñ nangu seen leetar jëm ci moom duñ nangu seen wax ñëw ci moom jox nañ bi daal jox nañ ko juge bi bàyyee nañ ko ko waaw kilifa gi nangur ku ko ci waxe parce que bëggut a may kooku benn njëggal naka noonu mu ne mujj gu ñaaw mu ne mu ne mujj gu ñaaw ñu bari ci nit ñi xamuñ mooy lan lan lañ ci yàlla musal mu ne mooy yàlla nattoo jaam bi waxtu wu nga xamee ne mu ngi waaj a dee muy bëgg dara ci mbiru àddina xolam di aju ci loolu nga xam ne moom la bëgg mu génn àddina fekk mu ngi am xijaab wali si yàlla tabaraka wa taala ngir ne xolam baa ngi aju woon ci leneen lu may yàlla tabaraka wa taala asallah salamatu walafia yaa ayyuhat sa nafsul mutmainna irjii ila rabbiki radiyatan mardiya bàyyi mu ne bakkan bi du am itminaan dal lu may ci xam yàlla tabaraka wa taala waaye bakkani ñooñ àddina nag du am itminaan lu may ci ut dafay ut te xolam du dal feeg mu ut bu amee it xolam du dal ndax waxtu wu nekk mu ngi jàq ndax mbaa duñ ko sàcc mbaadu du wàññeeku kon dal ci maarifatu billaahi lañ koy ame les aarifin seen kol li koy dalloo mooy shuhud qaala awalam tumin qaala bala walakin li yatma inna qalbi loolu mooy aarifin yi ñoom shuhud la ñuy amee dal bàyyi wax na ko feneen muminuun yi ñoom ci ci tudd yàlla la ñuy amee dal ala bi zikrillahi tatma innul qulub ci tur yàlla la ñuy amee ak dala xel nit yi àddina yi nag radu bil xayaati dunia watma annu biha ñoom mbiri àddina rek lañ óolu xaalis bi nga xam ne óoluñ ci benn lu may boo xam ne mu ngi am mu ci banque ba li nekk ci loxo yàlla te yàlla wax ne li seen loxo dafay jeex maa indakum yanfadu wa maa indallahi baaq ñoom li nekk seen loxo moom lañ gën a óolu moo tax lu xas ba dugg ci seen loxo duñ ko génne kooku nag moom du am dal mukk ndax waxtu nekk mu ngi naa mu ngi ut buy ut mu ngi tiit ndax danaa am bu amee mu ngi tiit mbaa dana yokk mbaa du yàqu mbaa duñ ko sàcc balaa nelaw dana ut fukki gardien yoo xam ne ñooy taxaw di ko garder parce que xel mi dalul waaw ndax foog na ne am na ku war a ñëw ci coffre-fort bi ñu ko am na koo xam ne moom amul benn dërëm moo tax moom mu ngi cee digg bayaal ba la tëdd di nelaw amul dara lu muy tiit gardewul poos bi ndax poos bi dara nekku ci waaye see ku nelaw ci bayaal bi fekk yaa am 100000 doo mën a nelaw parce que da nga naan léegi tey benn waaye jaar fii wis sama jël ko waaw ke léegi nga xam ne amul benn dërëm gis nga ko mu tëdd nelaw ba yandoor nga foog ne am rek mooy tax nit ki neexu bànneexu bànneexe xol daal kenn mënu koo am lu may ci bëgg yàlla ak tudd yàlla kuy bànneexoo leneen da feebar gis nañ ko feebar bay muut suuf nag taxut suuf neex moom moo feebar rek gis nañ ko feebar nag ba weex ci moom taxut lem weex waaye moom moo feebar rek qul huwa ahad mu ne yàlla dafa indi tëggi nakira ahadun kenn la ndax waxdaaniyatu laahi gi ni yàlla nekkee ku dafa nëbbu mbindeef yi lu may ñi xam ñi am maarifatu billaahi moo tax bam ne allahu ne ahadun ñëpp xam nañ ne yàlla mooy ki ki bind waaye weetaayam réer na lu may ñi am maarifatu billaahi moo tax shirku yomb ba muy wax allahu nag daf ko maarifaal ne allah ne assamat ndax luñ xam la ndax maarifa luñ xam la donte ci xaqi kaafiri la wala in saaltoo man xalaqa samaawaati wal ard la yaquluna allah boo leen laajee ku bind asamaan ak suuf dañ la wax yàlla kon baate yàlla moom xam nañ ko moo tax baati allahu bi mu def ko maarifa samadu mu def ko maarifa waaye ahadun wéetaay yàlla gi bu fekkoon ne dafa leer pour ñëpp doo gis kuy bokkaal yàlla waaye yàlla am na moom ñëpp la leer caay-caay rek moo fi nekk waaye ñëpp la leer ñëpp xam nañ ne yàlla am na moo tax alquran ñëwut pour wax ne yàlla am na pour wa gaa jàngal nit ñi ne yàlla am na déedéet fekk na nit ñi xam ne yàlla am na ci taarix histoire yi dëkk yi nga xam ne ay millions yi at lañ dë lañ la la paase boo duggee ci seen taarix yi dëkk yi da nga fa fekk barab yi jaamukaay yàlla ñoo xam ndax dañ koy bokkaale ñoo xam lii lañ koy def ñii xam na lañ def ñii xam na la lañ def waaye yàlla xam nañ ne yàlla am na buñ kàccooree ba tibit yi jël benn xale yar ko ba mag ñi ne ki yàlla la ba tey nee nañ yàlla am na rek tey ñoom nee nañ yàlla am na waaye cooli mooy waxdaaniyatullahi wéet ak yàlla mooy li ni ñi bàyyi moo tax mu ne waxul ne qul huwallahu al mu ne qul huwallahu ahadun kenn la ndax kenn nam gi nekkira la mu ne luy xikma mu ne mu ne yonente sallallahu alayhi wasallam ne ko qul huwa allahu waxal ne yàlla kenn la yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fekkee xeeféer yi dañuy dàgganteeg moom wala ñu tuumaal ko wala ñu saaga ko xas ko yàlla tabaraka wa taala moo koy tontul moo tax it nag mu war yonent bi bu fekkee dañoo dàgganteeg yàlla wala ñu xas yàlla yonent tont loolu tax yàlla ne ko qul huwa allahu ahad ba xebeer yi waxee ci yàlla wax loo xam ne xeew ci jëmmam ak ci melom moo tax yàlla yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam la tontuloo <coughs> moo tax mu wax ne lam yelit walam yulet dàq na ne jur na dàq na ne jur nañ ko xigma bi lu tax muy dàq loolu ne xeeféer yi oote wuñ ne yàlla jur nañ ko waaye am na ñu ci oote na yàlla jur na am na ñu ci oote ne yàlla jur na wa qaalat ilyahuudu udayru bnullah wa qaalat nasaara almasiixu bnullah ñoom wax nañ ne ñii masiix doom yàlla la ñii ne uzayru doomu yàlla la waaye oote wuñ na nag yàlla dañ ko jur xebeer arab yi ne malaaka yi doom yàlla yu jigéen lañ moo tax mu ne lam yelit ndax ñoo wax ne wala waladallah doom benn mu nekk doom doomi ndigg koo jur walla koo doomo yàlla dàq na ci boppam loolu ne walam yulet wax ji wax ne walam yuulat boo ko xoolee ci xool rek daf lay déggloo ne lam yelit ba tey wax na ci doomi aadama ne am na xel ak bànneex xel toujours dafay soxla ku óor koo xam ne moom lay dénk ay yëfam yu cher loolu mooy yàlla bànneex dafay soxla ko xoomal koo xam ne moo koy dimbale ci li muy mébét ak li muy ut ba tey kooku mooy yàlla looloo tax mu ne allahu ahad ngir xooluloo xel yi xooluloo xel yi pour ñi xam ne am nañ ku xóor kuñ mën a dénk seen yu cher waaye mu ne allahu samad pour óoluloo bànneex yi pour ñu xam ne am na fu ñuy fajee seen soxla yi am nañ ko xoomal ku ñuy jublu ci mboolem xaajo yi mu koy faj loo tax mu ne allahu samad def ko taarif mu ne ci tafsir qul a'uuzu bi rabbil falaqi benn tur la indi mooy rabb muslu ci ñeenti mbir qul audu maa ngi muslu bi rabbil falaqi ci ki nga xam ne mooy borom ak suba moo xar fajar rabb la indi waaye min sharri maa xalaq ci xay lim bind wa min sharri gaasiqin ida waqaba lëndëm bu tàbbee wa min sharri nafaathaati bil uqadi ci xay njabarkat yi nga xam ne ñi ngay fas di takk wa min sharri xaasidin ida xasada ci xayi aji xañaan bu feeñalee xañaanam ba nga xamee ne mu ne li ngay li jaam bi di muslu fii yëpp ajoy àddina rek la moo tax benn tur rek la ko indil bi rabbi benn yoon rek la ko indi ndax aajo ji aajoy àddina rek la mu indi benn tur muslu ci ci xayi lem bind pour xamal la ne àddina ñaari àddina la àddina buñ bind muy matière yeeg li ngay gis yëpp nga xam ne loraange ci lay jugee waaye pour nga xam ne aalamul amri am na mooy bi nga xam ne mooy aalamul arwaaxi nga xam ne leer yeeg misaal yi ci la jugee luy lor jugewut foofu looloo tax mu muslu ci ñoom mu ne seetal ba waxee qul auzu bi rabbi naasi maa ngi muslu ci borom ak borom nit ñi ba ci mujj saar bi indi na rab indi malik indi ilaahi qul auzu bi rabbi naasi maliki naasi ilaahi naasi ñetti tur fii jëfandikoo na ko bële benn tur rek la indi muslu ci ñeenti yëf xay li yàlla bind xay lëndëm bu tàbbee xay njabarkat buy fas ay aji xañaan bu xañaanee waaye qul a'uuzu bi rabbi naasi maliki naasi ilaahi naasi lu tax ngeen ne aajo ji aajo diine la bale aajo ji aajo àddina rek la moo tax benn tur rek la jëf na jëfandikoo pour xamale àddina xoyaf ak àddina ba aajo ji nekkee aajoy diine nag ci la indi ñetti tur pour xamal ne mbiri diine moo gën a am importance moo tax mu indi ñetti tur bi rabbi naasi maliki naasi ilaahi naasi la tax min sharril waswaasil xannaasi ndax sharri ay seytaane mi nga xam ne dafay dox nit keeg diine moom lay moytandiku moo tax mu indi ñetti tur yàlla ba tey yàllaa ngi lay xee ci ñëweteem ne moom mooy rabbu bi nga xam ne mooy yar jaam yu ndaw yi ci ñëweteem ndax ndaw yi ku leen yar ak ku leen jubbanti moom lañ soxla mu ne bi rabbi naasi rabbu dafa kon méngoog tarbiya ak islaax mooy xéwénal ak yar nit ki bu demee ba mag nag dëgër dafay soxla ku koy tàggat soxla ku koy teg ci yoon soxla ku koy jubbanti moo tax maliki naasi moo tax waxambaane yi ñoom soxla nañ buur soxla nañ autorité boo xam ne nii moo leen di teg ci yoon ñii rëylu soxla nañ buur bu leen di not moo tax mu ne maliki naasi pour nga xam ne am na buur bu dëgër boo xam ne nii mën na leen a jubbanti bu demee ba mag soxlaa dellu ci yàlla ku ñuy jaamu la soxla ilaahi naasi mooy yàlla guñ jaamook nit ñi yàlla ji nit ñi di jaamu mu def mu ne ñetti xaaj kon <clears throat> kii di xamale ndaw yi dañoo soxla yar waxambaane yi soxla ku leen di surveiller di leen jubanti mag ñi soxla jaamu yàlla terewul ne ñoom ñëpp soxla nañ jaamu yàlla waaye dafay joxe xikma pour wane ne catégorie gu nekk am na luñ gën a soxla mu wax moom Cheikh Sëriñ mbay moo jëlee lii ci ci xikma yum jëlee ci tafsiri Baay mu ne xam naa yaakaar naa lu bari faat na ma ci maa ngi sant yàlla ba tey wax na ne xikma bu nekk ci ku jàng surati Ixlaas mel ni da jàng ñu ne yonentu ne ku jàng surati ixlaas mel na ni jàng ñetteeli alquran luy xikma bi ci loolu xikma bi mooy ne alquran digle la ak tere digley tere yi benn muy zahir wala muy baatin mu ne ixlaas nag ñëwee na mbooleem tawxid tawxid yëpp wéetal yàlla yëpp lixlaas indi na ko looloo tax mu mel ni kon ku jàng lixlaas indi nga ñetteeli xaaji alquran wax na ba tey ne ci qul yaa ayyuhal kaafiruuna na ne ko jàng mel na ni jàng nga ñeenteeli xaaji alquran mu ne lépp lu yàlla aaye ci ay tere ci tere jaamu leneen lu dul yàlla ak saxal war a jaamu yàlla xul yaayal kaafiruna indi na ko alquran diglele ak tere ci zahir ak ci baatin mu mel ni kon aaya ji e, saar wi indi na ñeenteeli xaaj bi nga xam ne mooy zahir gi mooy war a jaamu leneen lu dul yàlla tabaraka wa ak saxalal jaamu dàq jaamu leneen lu dul yàlla tabaraka wa taala ak saxalal yàlla jaamu mu ne am na yeneen yu ma ci fàttalikuwut lii mu ne toq-toq rek la boo xam ne mu ngi ko jëlee ci géej xam-xam googu muy géej ak xam-xam Mawlana Cheikh Ibrahima radiallahu anhu booba band yi ñëwagut di jël tafsir bi comme ni ko Baay waxee ba Muhammad man koo dajale ci téere yi mu ko dajale allahumma صل على سيدنا محمد الفاتح المولى والخاتم وسوق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق المقدار العظيم تنترنا بها الإجابة عينا حين في أنفسنا في أهلنا وذرياتنا وأصحابنا وخدامنا وأحبابنا وأنصارنا من حضر من الجميع وغاب وزدنا واعتنا وارفعنا ودافعنا عنا احفظنا وسد امورنا وارحم داننا وقلوبنا واجعل خير ايامنا يوم لقائك والسنه بصدقك الجميل وامنا بلطفك الجزيل فضلك الجميل وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم am na beneen nag boo xam ne muxtatafaat ci tafsir boo xam ne Mouhamed Lamine Jëkkani moo ko defoon moom it ñu jël boobu waaye seulement après na ko set téere bi mu ngi fii yaay jël wér jiroo na nga def yaa bëgg jël wér hmm? xaalis doomu aadama bi jënd. léegi tudd. ko jël doo ko bàyyi si gir dund doo ko benn wirdu ci wirdu sëriñ doo ziare wàllu wirdu tijaan waaye da boole ànd ak laal doo baax sa yaar waajo nangu voilà jërëjëf mbokku ko Kossy TV ñu ngi ñaanal yàlla Cheikh Mouhamadul Mahi Aliou Cissé yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér dëgg-dëgg taxawaayam rafet na si diine waaye taxawaayam rafet na si xam-xam dëgg-dëgg islam di ko ndamoo àdduna di ko ndamoo kon li war ñun taalibe yi waxtu bu nekk mooy di ko ñaanal yàlla fan bu gudd bu ànd ak wér yal na yàlla ko yal na yàlla sàmm ko xaar koot ko bu baax a baax dëgg-dëgg ni nga xamante ne nii noonu la fi nekkee noonu ndonal ñaari boor yëpp dëgg-dëgg matale ne ko waaye nag ndonol ne moo Eh, Babou Khadra di Sidi Aliou Cissé loolu tamit matale na ko kon ñu ngi koy ñaanal yàlla fan bu gudd bu ànd ak wér taxawaayam yal na yàlla yàggal ko fi bu baax a baax di gërëm bu baax ni faral di waxee jotaay yoo xamante nii nekkul jotaay bi ñu ngi gërëm waa Mitaaf bu baax a baax di leen eh, jaajëfal di leen nga xamante nii ñoo àndoon ak ñun si wàllu liggéey bi si Facebook bi di leen ñaanal yàlla bu baax banda waxtu boo xamante nii darsu bi eh, commencé dinañ ko ànd ak ñun ba mu jeex si noonu la ñuy joxoon tuwaatee ak yéen dig dajee fee nga xamante ne moo nekk Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass si njàngale mi nga xamante ne moo nekk tafsir alquran boobu noonu muy def foofu noonu di gërëm képp koo xam ne rek yaa ngi ànd ak ñun si wàllu liggéey bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu lépp loo xamante ne nii dëng-dëng la si wax ji ñu ngi siy jéggalu waaye lu baax kese lañ si jublu woon jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf macha allah jërë ngeen jëf